jaajëfal nañ leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen sit internet bi di net bi tv li gën a ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek eh, kaddu yi nga xamante ne kii di Gris Bordeaux daal dina koy yëkkati rek di naqarlu nag ci sortie bi nga xamante ne rek la Birame eh, Souleye Diop defoon eh, ñeel nag parrainage wall événement yi nga xamante ne rek moom moo am ci biir réew mi lu ci mel ni làmb kii di président bu association des lutteurs en activité moom nag la mu daal di xam ne rek mooy jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk nag suñu pétrole beek ak lépp loo xamante ne énergie la mu daal di concentré ñëw eh, ci liggéey bi nga xamante ne daal moom la ko sas ndax bu fekkee ne liggéey rek am na lu mu liggéey di kaddu kii di eh, Gris Bordeaux ci ab entretien bi nga xamante ne rek doon na ko sekk ak suñu nattango Albourakh Ivan moom nag eh, troisième tigre de Fass la mu dal di xamle rek mooy Sénégal ci jëmi boppam soxlawul benn yoon boobu lee soxti ak kaddu yi nga xamante ne rek dal na ko ci yëkkati la ñu gën soxla jamono ji du lenn rek lu dul bennoo comme nag ni ko président de la république waxee moom nag nee na xamul bu baax kii di Birame Souleye Diop waaye nag li nga xamante xamante ne daal daal dina koy def nag jëmale ko ci boobule sorteem ci la daal xam ne rek ab jëwriñ gu bees la ci gouvernement bi lay liggéey ci la xam ne nag moom la ñu dénk pétrole ak énergie nee na moom ci jëmi boppam daal tabb gi nga xamante ne daal dinañ koy tabb moom biram moom liñ ko tabbee du lenn rek lu dul nag mu concentré wu bu baax ci li nga xamante ne rek moom la ñu ko dénk yaakaar na nag liggéey bu am solo rek mu koy xaar te nag mbir mu nu mel sénégalais yi tamit ñu ngi koy xaar rek mu daal di ci répondre nag ay attentes ndax ki nga xamante ne rek moom mooy président de Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne rek moom moo am confiance ba dénk ko mbir mu nu mel eh, kon nag na ko liggéey ba tey rek bu ñu sukkandikoo nag ci Gris Bordeaux nee na nag bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon rek daal dinay def yëf yi am solo ci wàllum làmb ndax gis na ne nag làmb dafa bokk ci liy développé réew ba tey rek mu daal di cee yokkute ne mbir mu mel daal bu ñu sañoon daal day am ab continuité maanaam daal dañ koy gën a ñoŋal ndax nag yooyu li muy wax yëpp nekk na ay débat yoo xamante ne rek ay waxu picc la di kaddu ki kii di Gris Bordeaux mu daal di cay yokk nag nee na tey jii ñoom ci seen jëmi bopp rek toll nañ ci 8000 personnes yoo xamante ne bi nga ciy gis ci ñoo ne sax amuñu activité loolu moo nekk seen problème bi nga xamante ne rek ñoo ngi lañ xaar ñu indil leen ay solution au lieu que nag muy yëkkati ay kaddu rek di wax yenn wax yi di kaddu yi nga xamante ne rek kii di Gris Bordeaux daal dina koy xamle jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar